ngor rek a tax mus xeebal kenn kenn yitteem. maawu tawféex waa kër Serigne Mamor Mbacke Fadilu ak ah. tawféex café waa kër Serigne Mamor Mbacke Fadilu ñoo leen di may seen émission. te baa muy xañ ku ñëw di ko laaj ña daa joxe ak ña ko daa mos lu ji ñoo fayamoon. aawuzu billah bismillah inna waliya allah hasbi allah wa ma tawfiiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib nawwir fuaadiya walisrah sadri wajxal jihaadiya ka yawmi badri bokki jullit yi taalibey murid yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di yëkkati ay kàddu yu seede ci koo xam ne mbokk la di wëllëre di lépp ci noonu muy sëriñ Mamour Mbacke ibnu Cheikh Mahmadul Fadil mu nekk jëmm joo xam ne yàlla boole nañu ci at yu limu ndax képp koo xam ne jaxasoo ngeen loo xam ne buñ ko seetee mu mat juróom fukki at wala la koy manqué lu bari te lépp rafet loolu kon ñàkkut loo ca xam li ci ëpp solo nag mooy jikko ju rafet yoo xam ne ràññ nañ ko ci moom ci diiru booba nun ñu nekk ay ndaw di jaxasoo jaxasoo gu jege ndax fu mama mosaan ci sax daf ma koy fàttali naan ma gis nga jamono ni muy soppi ko ci koo xam ne daanaka daaw leen toog lu ëpp ñetti fan te wu leen ndax booba téléphone bariwul waaye gisante gi moo ëpp ndax demalante bi ak dikkalante bi te yàlla dogaloon barab bii di kër gi booba ñoom sëti sëñ Touba yi ñu ci ëpp fii mooy seen waxtaanukaay saa yi ñu noppee ci am njàng rek li ci ëpp ci ngoon gi fi lañuy faral di daje moom nag mu nekkoon ci it ku ràññiku ndax booba suñu jur mi ngi fi soxnaa yi sa waaye moom bu waxtaan wi masaana xumb xumb léeg-léeg moom day bokk ci ñi rocciku dem di siyaara soxna si di ko nuyu bu ko defee mu koy laaj ñi ci des mu ne ko ah soxna si di ko seeral ne ko yow day ku am itte nga ndax boo ñëwee day waxtaan wi du la fàbbi ba faaw da ngay rocc ñëw nuyoo maslaa waaw mu teel bokk ci ñu gënoon a ràññi mu nekk koo xam ne melokaan woowu mu ñu ko xameeloon daal nun loolu lañ mas a ci moom mu nekk koo xam ne bi jàng jotee ni ko Cheikh Mabdoul Fadil tege woon ci loxo sëñ mbakke Jaxate nga xam ne ñu bari jaar nañ fa mu jàng xam li mu war a xam ba mu noppee ci njàng moomu dafa wëlbatiku di jàngale moom ci boppam ba ñu bari tey dañ nañu réer te ci moom la leen yàlla jaarale mu wëlbatiku itam euh, nekk koo xam ne ginnaaw bu mu nekkee boroom xam-xam ba noppi wëlbatiku di ko jëfe nag ndax jàng te di ko jëfe moo ëpp solo jàng ba noppi te jëfe woo ko léeg-léeg man bu ma daan jóge fii di dem gaabu li ci ëpp bu dee waxtu ngoon damay jaari fi moom waaye néewaana léeg-léeg nga dem jaar fa yoor yoor wala ngoon te fekkoo sax muy jàngale xam-xam mu nekk nit ku maandu ku sell daanañu xootal suñuy waxtaani biir lu bari loo xam ne lii fuñ gisee fu ne it loola lay jàpp ma jàpp loola gis na dara soqiku ci ba bis maa ngi fàttaliku ma jóge fii jëm ngaabu ne ah sëñ Mamor day xam naa fan yi gën nañoo jise naa fa jaar bala maa dem ngaabu bi ma àggee keroog yàlla daa dogal maa ngi fekk mu nekk ci néeg bi ma nuyoo fekk mu toog ak nijaayam sëriñ Cheikh Jaxate mm-hmm. ak soxna na bu muy way juram mm-hmm. ñoom ñett laa fekk ci néeg bi mm-hmm. bi ma duggee ma daal ne ah sëñ bi kenn maa ngi jéggulu xam naa daa mel ni ci waxtaan laa leen fekk maa ngi kii sëñ sëñ Cheikh Jaxate moo ma ne déedéet yow kay moom mën ngaa toog ndax luñ buñ doon waxtaan itam fi ne yaa ñu gën a yell ci moom waaw ndax la nga mën a mën a wax ak moom sax nun mënuñu ko kon defuñ jataay buñ lay nëbb ci lenn waaw daa fekk nii ma jóge ci réew ma ñëw fi rek di waaj a gont loolu dong waral jataay waaye du leneen ñu toog fa waxtaan lu yàgg ñu indi fa café ñu naan def yëpp ma door a tàggatoo ak moom waaye gis naa ne jamono yooyu buñ masaan di waxtaan it ëpp ak mbaxam ak ak ak yiwam ak ak bëgg dëgg tam nango woyofal bopam lool ñu bari rañ nañ ko ci mom ndax bu ma masaan gis daf ma daan wax ne ma li yok sama togaay bi ba tukkiwuma fenn nanguma dem fenn yow ya ma ci ya ma ci duggal daf ma ko daan wax mané ko ah señ bi da nga bax rek waye duggaluma ci duma la duggaluma li ci lool fekk waxtaan la rek ñuy waxtaan mu naan ma ah waaw léegi yow boo nekkee ngaabu it da nga fiy faral di gëj ndax jamono booba it li ngaabu buy jege-jege daanaa am yoon yoo xam danaa toog ñetti weer du ma ñëw Tuubaa muy lool nag mu di ma ko jàmbat ma ne ko ah man de sëñ bi dama doyloo sëñ bi rek di góor góorlu sama kem kàttan daal eh, ci jaamu yàlla waaye amul leneen lu ma kii mu naan ma ah, mu di ma tooñ nan ma mom koy ñàkkul Daka denc ndax yow dakaru sax leg leg nun ñu recc dem fa te te yow do dem fenn mané ko nak mo ne señ bi bo mason day buñ mason rek ne ci suñ tool yi ñi ñu yalla bolel ci ay tank ni di leen jema a di leen yar di leen jangal ab liggey lolu it ñu doylo ko rek tay jaamu yalla man yaakar na ne kon lu warona wuti fenn rek moy mu ci soxla ñu fekk suñu waaye nag foofu ma ne ko njëlbeen gi fokk day metti xanaa tàggatu ci rek te ak amuk doylu te bañ a xemmeem lu bari mu ne ma a ah, man de xam naa ne kon danaa jéem a tàggatu ci loolu mayit ndax bu ma doon bayit bañ a weesu ay tubaab ak yooyu ñuy waxtaan ci yu mel noonu waaye mujj na ndeysaan ci atam yu mujj yi fuñ tase it danaan ma ah man de am na lu ma lay sante ndax lii ma nekk de yaa ma ci dugal ma ne ko déedéet xanaa kay kon dañ cee dugalante nun ñëpp <laughs> ndax dañ doon waxtaan di soññante <laughs> waaye pour wan la rek ne la mm-hmm. nit ku baax nga noonu mm-hmm. nit bu fekkente ne eh, lim mu yéene boppam la yéene ñëpp mm-hmm. te kum gisit mën naa woyof lu ci sa kanam waaw te loolu mooy yoon gis nga Sëriñ Tuubaa dama naan leen euh, li am solo mbiram ku ko xam dëgg-dëgg jërut euh, xatal kenn ah jërul siis kenn jërul soxore kenn ndax fi ne tey jii dama naa leen ci waxi wolof rek boo génnoon tey bëgg a xool asamaan si doone sa morom may ma ma xool mbirum sëñ Tuubaa la mel lenn lu ne fa mu koy def euh, moom du ca xaar kenn ndax am na ñoo xam ne mën naa am sax bu leen doon tàgg wala mu koy jaarale ci ñoom gàllankoor am ci waaye kenn ku nekk euh, sëñ bi moom fa nga toll ci moom rek day fas yéene taxaw féete la foofu ci ci yow itam taxawee noonu ci ci ni mu war a taxawee ci yow moo tax li nga xam ne daal nun xaymee mën nañ ko ci sëti sëriñ Touba koo xam ne ñu lay tudd di tudd sëriñ Touba loolu gis nañ ko ci moom ndax euh, sëti sëriñ koo xam ne yow fu ñu la séen dafa war a am jikko yu ñu roy ci yow moom làmboo woon na jikko yooyu ak melo woowu ndax xam naa ne doo ko bett mukk ci lu neexul yàlla waaw ma ngay jàng wala muy jàngale te lépp lu ko dukki lu ko dikkal bu koy joxee da ngay defe ne denc na lu ëpp lool te fekk na dara néew fu amaana waaw waaye doyloo yàlla ak sëriñ bi ak xam li ci dimbali doomu aadama fi mu toll ak njariñ li mu am moo taxoon nit ñëpp ñeme ko riir wuti ko ci loolu ndax xam nañ ne euh, lu mu xëye lu nekk du ko yendoo lu mu yendoo lu nit du ko fanaanoo ndax dara du taa ci loxoom ci wàll boobu Linga nga xamne ne liggey bu mag bi ñu ko denko nitam moy alquran ji mu di saytu kéro bi ko ko sëñ Sidi makhtar di door jox xamna ne bokku na ci ñim jëk a seet si kero ngaabu la fekk wax ma liggey bi wax ma yit ne ma fasna naa yéene du ma ci yow sa bëgg na yi nga di ci jox say xalaat mané ko mayit fasna ko yene ndax jappal ne luma sekk ak yow la waaw loolu daana tax leg leg ma am ci ben xalaat sax bu mu mënta daal di dem ma téléphoné ko. ne ko ah sëñ bi de xam naa nangam ak nangam suñ ko defoon. bari na ci loo xam ne sax li ma leer mooy daana ci am jafe-jafe yoo xam ne ci wàllu alali boppam di ko ca def. Mhm. te boobu xëy na mënoon naa ñàkk. Mhm. ndax boo gisee ni mu ci daan doxee itte ji mu ko jox. ak luñ fi indi lu ne dikk ko ko séddaleloo na koy séddalee te du nang dara jege ko ci wala mu jege ci njabootam loolu commande dëgg ko man ak koo xam ne kii xam nga ne ki la koy defloo dalaa féete mag waaye ëpp la ci cër yéen a ci yem moom doxin woowu la ci daan doxe waaw ndax euh, maa ngi fàttaliku safinatul amaan bii ñuy liggéey euh, sëñ Modou Boussa Dieng magam ku ko fonkoon la ndax booba dafa fekk euh, sëñ Ahmad Badawi rakkam bi nekk représentant ci kër sëñ Fallou mais sëñ Modou sa Dieng ci boppam moo ma wax ne ma sëñ Ahmad bu fekkee soxla ngeen ko tam tukki sëñ Mamor laa leen di boole lu ngeen ci wax wax leen ko ko mu ànd koo yéen bis nag am programme bu ñu doon dem Daaru Xudóos euh, ma dem kër sëñ Mamor ma ne ko ah sëñ Modou kat waxoon na ne bu fi sëñ Ahmad nekkul yow yaa koy wutu ci lépp waaye fi saase dafa ma ne ah waaw loolu defe nga ne du du aaje yeesal ma ne ko ci naka mu ne ma euh, xaaral sëñ Modou nga saam yebal léegi dama lay jox numéro bi rek nga woote ci waaye bi ma woo jot sëñ Modou mu jël téléphone bi dama ne ko ah ndigal li nga joxe woon de moom laay dox nii maa ngi kër sëñ Maam Mor nii sax fekk boobu sëñ Maam moom dane woon naa ko jot waaye ma ne ko nag far maa ngi nii toog ci sëñ Maam waaye moom daa bëgg ndigal li nga yeesalaat ko mu ne ma loolu koy yomb na jox ma ko jox ma ko gaaw <laughs> ma daal koy jox téléphone mu daal ne ko nag loolu maa ko waxoon kon yow it na ci taxaw ni nga ci war a taxaw nga gis ne rek fonk gi mu fonk kilifa ak it euh, lu mu mën a doon moom ci lu wér la koy teg waaw ndax euh, moom amul lenn loo xam ne li da ko daan dox ci bànneexu bakkanam wala mu koy wanewu wala leneen kon nag kooku nun li ñu ci metti rek mooy nii mu demee suñ borom nag lu mu def moo xam la tax ndax man yàlla daa dogal bii muy dem nii lu ma ni bette dafa yéeme ndax yaakaar naa alterné la fi jóge woon dem dakaa dimanche ci takkusaan woo na ma téléphone dimanche 18h woo na ma boobu maa ngi gaabu mu ne ma ah yow léegi màggalu bisu soxna si bi lu tax waxoo ma ko te dégg naa yaa ngi yaa ngi koy waaj a def ginnaaw suba ma ne ko sëñ bi ni yëf yi ni mu demee la comme dañoo nekk ci jamono kowit bi kenn mënta dajale mbooloo yooyu te yow it bërki démb rek nga mujj fi man di ma jaale si sëriñ si la ma ne ko lolu fekk kat dafa ñew fi ci semaine bi ko jiitu bi mu ñëwee Modou ñaan yow la dal bi ñu yek ci kaw bi ñu bi di waxtaan ni bi ñu ko andilé ki ndox yek yoy mi ngi togn abdul Khadir sama dom bi neko oh, damay bañ sa bay wax ma dara de nekkon li dama koy ëmb yobale mané ko wutal ko wutal ko bus mu ne ma damay bañ ñu wax ma dara mané ko kenn du la wax dara mais man bir mi ni ma bett dal ndax bi nga xamé né loolu amna ay fan lañ ci tek ci la ma téléphone dimanche jooju xamné ne ci alterné ji la fi xëy di dem Dakar dimanche 18 h mu wax ma ne ma ah xam nga né fofu la daan agné ci kat man boo ma wëg boo ma ko yëgalutit waxoo ma ko it danaa ñëw ndax musuma ko manqué te fi lay agné ci waaw motax man bir mi ma bet go xamné suñu borom rek mo man loolu waaw suñu borom rek mo man loolu waaye dal nité a ko xamné ku mandu ku sel ku bax ku mën rafetal ak bokk ta xamna ne suñ borom dana ko fay lolu fe mu nek waaw kon yàlla na yàlla yokk yërmaande ci mom te jéggal ko te sam saytu ak njabotam njabot gi mu fi bayyi suñ borom teyel leen bopam te loolu rek lañuy ñaan ndax mom liko war def nako dafa di nak amna fof ku fa tollu jaar fa ni la nit ñi soxla non la la suñ borom di soxla mhm. waaw ndax ku ne xam ne mom fuñ ko tuddu fu nek ñu xam ne mat na royukaay ci lépp njabootu sëriñ Touba nag képp ku ci mel melokaan woowu xamal ne mooy wi gënal sëriñ bi ndax sëriñ bi daf daan wax ne kuñ may askanale ku ne de la nga baax baaxle képp laa bokk ak yow waaye la nit ñi gis ci yow ba di ko xebet sama yoon nekku ci daal képp koo xam ne kii gis nañ ci yow loo xam ne du du naka su dul ngay nekke ba ku la gis nar ma caa xeebe wala mu yabe ca sama yoon la loolee ngay jëf duma la ko jéggal ba yowmal xiyaam waaw kon nga gis ne kon nangam laa ci sëñ bi rek doyut la doy mooy nga fexe dama naan leen nga góor góorlu jéem a am loo baax le luy tax sëñ bi nangoo bokk ak yow ndegam nee na ku ne la nga baax le laa bokk yow li la war booy xëyee ko gont nga góor góorlu ci loo baax le luy tax sëñ bi nangoo bokk ak yow waaye maay mbokkum sëñ bi rek sëñ bi ne maa mooy sama mbokk ko gën waaw kon nun loolu lépp ab soññe la ci nun ñu war cee góorgóorlu ndax kat bu fekkente ne Serigne Touba dafa ñàkk ab ñagam kenn ku ne nag la nga ko war a taxawe mooy wet ga nga taxawe ca ñag ba nga fexe ba kenn bañ faa jaar di ñag gi ñag bi bu kenn ku ne taxawee noonu rek sëriñ bi am li mu bëgg waaye bu kenn ku ne jàppee ne yow ñag bi buñ ko doon ñàgg it nga fas ci say loxo taxaw fee te naan diw ñoo ma fa war a taxaw loolu am na njukkal boo war a ameel sëñ bi te delloo woo ko waaw ndax kat kenn ku ne boo wéetee ne maa ngi sant sëñ bi yëg ni sëñ bi féete na la fu ne waaw yow nag ana foo féete sëñ bi waaw kon yow war ngaa wut foo féete sëñ bi pourtant soxla nag ku ko féete fenn de fi nga koy féete nag mooy nga tàggatal ko sa jikko ji ak sa jëmm ji ba lenn lu ñuy sibe yi diine ji duñ la ca seen duñ la ca dégg waaw ndax sëriñ bi moom daraam génnul alquran ak sunna waaw kon nag kenn ku nekk ci foofu nga war a njëkk góor góorgóorlu te tegu ci yoonu siraatal mustaqima te bañ koo wàcc sëñ maam Mor daal ñu ngi koy ñaanal suñu borom tabaaraka wa taala fa mu jëm gënal ko fi mu jóge ah, waaw ndax demin bi rek wane na ko benn fitna fekk ko ci sonalut kenn nit ji tey jii mënoon na fee tëdd lu yàgg ay nit di dagg seeni soxla di ko yëkkatee ko tëral te du tee la suñ borom namm ci moom da koy def ndax inna ajalallahi isa ja ala yu aqar law kuntum taalamun kon waxtu ibu bu jotee kenn mënu ci dara waaye nag moom suñu borom seralal na ko mbir mi ba mu demee noonu ba xam naa ne moom lenn dara am bétt ko ndax léppam rafetal na ko fa tabaarakallaa ko yal na ko yàlla fay te yal na ko ak bokk fay rafetal na matal na ñu ngi leen di sant yéen itam ci yar gi mu leen yar ak jaxasoo gi ah, loolu ku mu dal ci sa bopp faw mu diis waaye nag boo delloo lépp ci suñu borom rek day daal di woyof ndax nun ñi fi nekk ñëpp kenn xamul ci sa bopp dara kenn xamul lu la fi dese kenn xamul kañ nga fiy jóge kon liñu war moy fexé ba baña nénal suñuy waxtu waaw fexé ba baña nénal suñuy waxtu rek ta xamné ne bis bu ñew jall na beneen ay delsi waaw ñu fexé nak ba bis bu ñew rek ñu jëf ci lu mu neew ñew lo xamné ne bu ñu ko wanee ëllëg dana rëy fi ñun ta fekk mu melni defu ñu won dara kon yalla nañu yalla boole dimbuli, euh ta njabot giñ fi bayyi suñ borom taxaw leen ba fepp fum leen warona fete rek suñ borom féete leen fa ñi ngi nuyu serigne mo safa mi nga xam ne ci mag ak rakam ñom ñep di leen ñaanal yalla ne leen képp koo xam ne daal am nga way juróomeel nii mu yar la jàngal la teg la ci yoon wi mu la war a teg loolu mooy liggéey bi moom tegu ci yoon wa rek te bañ koo wàcc fi mu ne lu ñuy sof rekk a fi nekk mm-hmm. waaye lu ñuy sos moom nekkatu fi nañ sos ci nañ sof ci fi mu nekkoon rek di ko def ci diggam ak doomu aadama yi diggam ak taalibe yi diggam ak diine ji ak yoon wi moom ku ci nekk war na la yoon wi mu jaaroon kon jaa jéem caa jaar te bañ koo wàcc rek loolu mooy mbir mi ku ko ci def itam moom léppam di fekk fii kon nañ ci rafet njort bu baax ñu ngi leen di baalu àq wa salaamualeykum wa rahmatullah